lu TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamaaleykum wa taala wa 14 septembre 1997 alxaaji Abdou Aziz baax fekki bàyyam bu tedd ba Cheikh Seydi Hadji Malick moom Abdou Aziz ak baax yi waaw dafa baax wala fi yeneen da baax daa baax waaw dafa baax ki nga xam ni nee naa la sàcc dafa dugg biir këram bi mu duggee ci biir néegam alaaji Abdou Aziz baax yem ci moom bi mu yamee ci moom gis sàcc bi jël alalam alaaji Abdou Aziz baax ni ko bunt bii ma duggee nit ñaa ngi fi toog boo génnee dinañ la gis te boo génnee mën nañ laa lor jaaral ci bunt bee kenn du la gis waaw dafa baax moo tax dafa baax moom alaaji Abdou da baax alaaji Abdou Aziz baax mooy ki nga xam ni bu la miinee ci jataayam toog ay fan gisu la day gaari oto def ciy teraanga ba mu fees ñëw ba sa kër ñu ne dama laa miin ci sama jataay te dama laa gëj a gis xanaa dama laa tooñ te yëguma ko baal ma àq kooku mooy El Hadj Abdou Aziz Dabakh dafa baax maam Abdou Aziz baax ki nga xam ni bu doomu aadama doon ñàkk noon ndax yeneen yi sax yàlla boole na leen ku leen koo xam ni seenu noonu la woon waaye bu doomu aadama doon ñàkk noon ñu ne El Hadj Abdou Aziz Dabakh kenn noonu ko tijaan yi bëgg nañ ko murid yi bëgg nañu ko xaadir yi bëgg nañu ko laayeen yi sopp nañu ko kër diine yi ne ci réew mi yëpp ñëpp sopp El Hadj Abdou Aziz boo ñëpp lañ cee teg daa baax. daa baax moom alaaji abdu ki nga xam ne dundam yëpp da jeexal ci tagg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam man taalibi xaadima rasul bi maay séeré ni alaaji abdu nee na ku bëgg am te boo amee dootoo ñàkkati del tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa asil dawaaman matxa nuxbati aasimin tanaalu lasi tabki min alfarti wal yusri alaaji abdu aziz da baax nee na bihi fastaqil yaa abdu ma dumta xaadiran yow jàmm bi feeg yaa ngi am kàttan del soxla di tagg rasulillahi ñu ko alaaji abdu lu tax mu ne fa matu rasulillahi min ahzami zonri li gën a màgg ci jaamu yàlla gu yàlla defal yàlla yàlla di ko nangu mooy tagg sayyidina muhammad ndax ci tagg yonent bi la gaa yu baax yëpp amee lanu amee bihi naa la maa naal rijaalu maratiban min al malikil allaami jàll ami asri allaaji abdul aziz baax nee na bëgg seydinaa muhammad kooku daal mucc la ci képp koo xam te ni borom bàkkaar nga waaye kóolute la bis ba nga xam ni bis ba nga dajeeg sunu borom subhaanahu wa taala allaaji abdul aziz dabaax nee na bëgg seydinaa muhammad farata la ci moom naafila la moom mooy naanu kaayam moom allaaji abdul aziz baax nee mooy kaabaam mooy ndoxu sam-samam mooy xajar aswadam nee na bëgg rasulillahi sama xol bi mooy sama lépp man alxaaji Abdou da baax kooku daal dafa baax kenn du ko fàtte yàlla waxoon ci alxuraan ni ñi mel ni alxaaji Abdou Aziz baax kenn du leen mus a fàtte wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaa walakin laa tasuruun laaj dina fan la yàlla denc alxaaji Abdou Aziz baax yàlla daal daa xar xol yi def ca Dabakh xol boo xar fekk ci àllaaji abdas da baax yal na yàlla yokki leerantu taas ci barkeem seen mbokk seen xarit abdoulahat aaw taalib xaadim rasul waaye soppab sayduna muhammad bi sallallahu alayhi wa moo leen di ndokkeel te ci bisu ki nga xam ni kenn du ko fàtte àllaaji abdas da baax kenn du ko fàtte benn autorité politique ci àdduna du ko fàtte présidence du fàtte àllaaji abdou assemblée nationale du fàtte àllaaji abdou ndax fu waay nekk àllaaji abdou kàddoom agsi na ci yow di la loo xel yàlla dina bàyyiloo xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo mën a doon alaaji Abdou Aziz Dabakh bàyyi loon na la xel sa diggante ak sa borom yaa xam yow mi yor alal ju ni gàññ alaaji Abdou boole na nag sa alal ba noppi wax la dëgg kooku may alaaji Abdou Aziz Dabakh dara mustafee su bëtam yàlla rek a feesoon ci xolam ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu